tey ci altine ji waa Synergie républicaine daal di nañu janook taskatu xibaar yi bi juróom benn waxtu ci ngoon jotee boobule jotaay li ko waral mooy amal seenu lancement activité yi ñu war a ci bëccëgub 14 15 ak 16 janvier 2021 bi ñu jëm yooyu la bëccëg ñu ngi ko organiser ci ndigalu président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall waaye itamit ci ndigalu roi Mohammed VI ca Maroc ak ki nga xamante ni moo di njiital réew Mauritanie Gazouane yooyu leen ndaje dañu koy amal ngir trouver solution ci problème bi di clandestine ana yan moyen la ñuy teg ngir rek xeex lu ni mel. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare yéen ñëpp jiital ci nuyoo bi sëriñ Mouhamadul Moustapha Niass ak ñi nga xam ni ñoo ànd ci synergie républicaine pour taxawal. jëmmal liggéey bi nga xam ni incha allahu taala moom lañu ñu fas yéene liggéey ñu yëkkati kàddu ci turu al ansar al muham al ahmadiya association la boo xam ni kii ko jiite mooy alxaaji malik si mawdo ibnu alxafiz ñu gën koo xam ci Maodo si doomu Serigne Babacar si Mansour xalif général des Tidiane doomu Alxaaji Mansour doomu Seydi Xaaji malik si al ansar liggéeyam dafa aju ci li nga xam ni mooy diine te boo waxee diine rek soo ne diine ak développement de man dañoo mën a tàqali waaye seen wàllu liggéey li ci ëpp sur le plan culturel la religieux loolu mooy liggéeyu al ansar al ahmadiya ñu yëkkati kàddu kàddu njaal jëmale ko ci ñi nga xam ni ñàkk nañu seeni doom seeni jarbaat seeni mbokk seeni rakk seeni xarit seeni am jàmm ñooñu ñépp ñun ci lañu bokk ndax suñuy jarbaate ngi ci biir ñu ngi yëkk yëkkati kàddu njaal jëmale ko ci ñoom di ñaanal yàlla xale yooyu nga xam ni jógoon nañu ngir wuti daani seen doole dogalu yàlla ba ànd ak ñoom fekk leen ba foofa jël seen ruux yàlla nañu mottalee seen ndaw ci aljana li nga xam ni moom lañu jël li sëriñ bi wax mooy dañu jël xubbul watani min imaan iman synergie républicaine bi ñu ko bëggee traduire dañ naan xubbul watani min imaan bëgg sa réew bëgg sa réew dafa nekk benn pàcc ci wàllu ngëm yàlla suñ doon xaaj ngëm yàlla am na ci benn pàcc boo xam ne ci ngëm yàlla bokk na ca mooy bëgg sa réew bëgg sa réew moo lay tax a toog si sa réew bëgg sa réew mooy tax nga liggéeyal ko bëgg sa réew mooy tax nga aar ko ci li nga xam ni mooy recherche am comme ni ko Maxed waxee léegi suñu recherche bi jiitu c'est la jeunesse kon jeunesse boobu soo bëggee sa réew nan nga koy préserver ba jeunesse boobu duñu des ci géej gi wala duñu dem ba coono dem ba yóbbu leen ci loolu ci la ansaarul muhammadiya fas yéene ànd ak ñi nga xam ni mooy synergie républicaine incha allahu taala ci dat bi nga xam ni moom la maxeet wax léegi 14 15 16 janvier incha allahu taala waxtaane li nga xam ni phénomène la boo xam ni c'est mondial du phénomène boo xam ni Sénégal rek la wala Afrique rek la mais immigration dafa nekk phénomène mondial loolu dafa bokk ci aaday doomu aadama déplacé wu jóge point A dem vers point B loolu ci aaday doomu aadama si traditionnel lu nit la bokk dans l'humanité la bokk kenn mënta tey nit ñi déplacé wu ima mu nekk déplacement boo xam ni da ngay jóge Kajoor dem Saalum wala nga jóge Saalum dem au sud Casamance loolu la ñuy wax immigration tas gu mu tas nag ci àdduna bi looloo poussé sallallahu alayhi wa sallam ca premier gàddaay ba ñu gàddaaye Makka dem Éthiopie fekk fa le Nagus mu dalal leen ndax am na ay sabab yoo xam ne mooy puus nit ki ba mu def gàddaay loolu moo ñu puus tamit sallallahu alayhi wa sallam màkkatal mukarama dem Medina loolu moo puus keneen ak keneen ñu jóge fa ñu jóge nekk feneen fa ñu ne waaye loolu lépp jamono moo dem ba toll foo xam ne dañ ko réglementé léegi ni boo bëggee jóge point A vers point B li nga war a def mooy nangam ak nangam ak nangam li ci ëpp nag comme que pression bi bari na mu am lépp lu ñuy wooye immigration boo xam ni c'est illégal mooy ku tënkuwul ci li nga xam ni moom lañu la tënk. wala ñu xool immigration clandestine bi nga xam ni moo fi nekk mooy ki nga xam ni fexe na sax ba yegg waaye ci clandestine bi googu mu nekk tax na amul benn possibilité pour développer li nga xam ne mooy xalaatam wala participer li nga xam ne mooy développement réew moo mu nekk wala lu ko may accès au au travail mënu ko ndax moom il est dans la clandestinité kon léegi synergie républicaine ak ansaaru al ahmadiya ci immigration illégal boobu yan xalaat la ci am yan mooy proposition yi mu ci joxe wala ci immigration clandestine boobu yan solution lañ ciy joxe yan xalaat lañ ci am ak lan moo sabab immigration bi lan moo ko waral lan moo tax waaye al ansaaru al ahmadiya avec synergie républicaine gis nañ ni li ëpp ci li sabab xale bi jóg di defi immigration illégale wala clandestine bokk na ci loo xam ni ca éducation ba la d'abord kon solution la boo xam ne war nañ koo rek régler ca problème éducation la tarbiya bokk na ci tamit yeneen yi nga xam ni wàllu économie la bokk na ci li nga xam ni tamit wàllu social la bokk na ci li nga xam ni tamit wàllu politique la ndax bu ñu amee crise sur le plan wàllu éducation ci wàllu yar ñu am ci crise loolu dafay feeñ ci wàllu société bi moo tax mu am crise sur le plan société bi te bu amee crise foofu tamit day indi jeexital ci wàllu koom-koom te bu amee ay crise ci wàllu koom-koom loolu mën na dem ba sur le plan politique moo am crise boo xam ne moo sabab xale yi di gàddaay ni dañuy dem barza wala barzak yan mooy jeexit yi nga xam ni loolu dina ko bàyyi lan mooy conséquences yi nga xam ne moo nekk ci loolu lan mooy résultat yi nga xam ne moom lañ jële ci loolu incha allahu taala yooyu mooy thème yi nga xam ni fas nañu yéene ànd ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ànd ak ñi nga xam ne mooy synergie républicaine incha allahu taala pour wax leen lan mooy résultat yi lan mooy conséquences yi lan mooy sabab yi ak yan solution nag la ñuy proposer ndax bari na muy loo xam ni dañuy relater rek phénomène bi xale yaa ngi dem naa ngi barza wala barzaq xale yaa ngi dem dugg ci gaal gi xale yaa ngi def lii état bi deful lii état bi deful nangam nangam ak nangam problème bi du problème mu état problème mu citoyen yi la problème mu sénégalais yi la problème mu képp koo xam ne citoyen nga nekk ci biir réew mi problème bi sa problème la moo tax démarche yi nga xam ne ñun moom lañ jël muy démarche communautaire avec un discours religieux ndax yaakaar na ni fi mu ne la religion dafa nekk loo xam ne c'est inné dafa judduwaale ak doomu aadama la religion en général nag la ñuy wax quand on parle la religion ñun au Sénégal dañuy wax lislaam ki est moo boo xam ni ñun nag suñu mbokk chrétiens yi ñoo ko bokk ndax inna haza la fi suxufil ule suxufi ibrahima wa muse kon li ñu gis mooy discours religieux bi nga xam ni ak approche communautaire bi nga xam ni moom la lu mooy fi lu bees ci phénomène bi nga xam ni mooy immigration clandestine loolu mooy li ci bees loolu mooy tajdid bi nga xam ne ñun moom la ñu bëgg indi ak ansaaru al ahmadiya pour jéem a fexe solution yoo xam ne définitif lay doon yu durable waaye loo xam ne bu xewee ren ñu jóg waxti da dajale xaalis dajale coow wax a wax a wax waaye six mois un an après phénomène bi commencé waat looloo tax ñun ñu jéem a changer approche pour jéem a fexe nan lañ koy régler définitivement li ñuy régler mooy clandestinité bi ak illégalité bi mais immigration kenn mënu koo régler kenn mënu koo arrêter ci àdduna bi soo demee Angleterre tey lii France ak Espagne di jooytu loolu la Angleterre di joytu ci gars yi jóge Afghanistan ñu jóge Éthiopie ñu jóge ci yeneen réew ak yeneen réew soo demee fa nga xam ni mooy Asie tamit la même chose bi mooy li nga xam ni moo fa nekk kon li nga xam ni mooy solution yi nga xam ni moom la ñu yaakaar ni war nañ koo jël taxawu ko loolu su ñu demee ba ca daja ba dinañu wax naka lañ koy jaaree nan la ñuy fexe ba jeunesse bi nga xam ni ñun mooy sacrifier boppam di dem ñi nga xam ni ñoom la ñu fexe ba conscientiser leen xamal leen lan mooy conséquences yi lan moo ci nekk fexe tamit responsabilité ñi nga xam ne ñooy parents yi ñu mën cee taxaw taxawaay bu mat loolu bokk na ci démarche yi nga xam ni incha allahu taala le 14 le 15 le 16 fas nañ ko yéene indi. troisième point bi nga xam ni al saaru al ahmadiya ak synergie républicaine ak ni ñu àndal. bokk nañ ko mooy dañuy yëkkati daawa woote appel la ñuy def jëmale ko ci ñi nga xam ni ñooy association des imams et ulama ñoom am nañu taxawaay yoo xam ne war nañ koo taxaw ci seen xutba yi ñu def seen ajjuma yi ci seen waaraate yi ñuy def conférence yi ñu def ñu waxtaan ak tafsir Abdourahmane Gaye su demee amati benn événement bu mu am ñu ne ko au moins jëla benn quinze minutes 30 minutes nga wax ci phénomène bi ak xalaat yi ci diina mën a indi ngir ñu solutionné ko ngir ëllëg affaire bi dina ralentir kon dañuy lancé appel boo xam ni ñu ngi ko jëmee ci al aïma wal ulama ñoom am na ñu rôle bu mag a mag boo xam ni moom lañ ci taxaw pour mën a wut solution bi noonu la ñuy wooye clergé bi tamit muy waa église bi ñu taxaw seen taxawaay ak association yi nga xam ne ñoo nekk jose si yi soit dans les régions dans les départements partout fu mu mën a nekk rek ñu fexe ñoom it ñu indi réponse li nga xam ni moom la ñuy xaar ci ñoom ci wàllu diine ngir ñu mën a solutionner le problème ak société civile bi daaira yi daa daaira murid yu xaadir yi yu laayeen yi comme que ñoom ñooy am occasion di daje dañ bu daje amee nañu waxtaane lii nga xam ni phénomène la boo xam ni mi ngi yóbbu suñu jeunesse di yóbbu suñu capital bi nga xam ni moom la ñu am kon nañu fexe ba ñooñu tamit ñu impliqué leen ci mbir mi ñoom ñu war a taxaw taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy def noonu ñu woy association islamique yi woo église bi noonu lañu ñu woy tamit mouvement femme yi ndax alxadaanatu lil umm yonent bi dafa ni ki nga xam ni mooy couvé muy jigéen jigéen ji nga xam ne moo yore doomam di ko nàmpal dem ba muy mën a dox muy jàpp ci loxo yi di dox di ko sexal muy lekk mu dem ba xëy màgg kooku yaakaar naa ni bu waxee ki doomam waxtaan ak moom ñu jéem leen a sensibiliser ñoom soxna yooyu nga xam ne c'est des femmes de développement jàmbaar lool ku muy sénégalaises yi ñu jéem leen impliqué dans l'affaire ñoom ñu wut ay programme yoo xam ne ñoom la ñuy indi tamit pour jéem a solutionner li nga xam ne mooy problème bi noonu tamit lañ ci woo al umma communauté bi yëpp ci bokk mbir la moo xam ni c'est-à-dire ci politique yi kese yemul ci chef religieux yi kese yemul ci société civile bi rek yemul ci gouvernement bi lekk ndax garder suñu frontières yi am nañu xalaat yi xam nañu nan la ñuy sécuriser li nga xam ne mooy frontières yi ansaaru muhammad yi ak convergence xam nañu am nañu solution ñu sécuriser suñu frontière non seulement dinañ arrêter li nga xam ni mooy immigration bi mais dinañ fa régler waale yeneen problème ndax dañ ciy profité waale aussi ci immigration clandestine boobu li terroriste ci loolu fa la ñuy jaar tamit def li ñuy def kon benn paaka la boo xam ne ñaari boor lay doon dañuy régler sécurité pour suñu réew waaye dañuy régler problème immigration clandestine bi nga xam ne tamit suñu doom yi ñu ngi ci ñàkk seen ay bakkan yu dul jeex kon fa tabaarakallaahu daal ci gàttal man wax ni dañ leen di woo di woo suñu mbokk journaliste yi ndax lu ci bari nag responsabilité bi seen loxo lay nekk yéen soo xoolee Sénégal journaliste yi ñooy oriente population bi ah yéen da ngeen am rôle boo xam ni su ngeen bëggee gaa yi jaar ci lu baax ñu jaar ci su ngeen bëggee ñu jaar ci leneen ñu jaar ci parce que journalisme information sa jaakum fasiqun bi nabain fa tabayanu information bi bu ñëwee nan lañ koy traité nan la ñuy fexee ba mu dugg ci bopp niñ suñu information suñu réew mi Sénégal information ñaar rek la ñuy joxe en religieux ou politique kon nu ñu politique nu ñu mel dañoo façonné sur le plan politique wala ñu façonné ni suñu plan religieux donc ñi ngi ñaan journalistes yi tamit ñoom ñu ñëw associé ak ñun joxe approche bi nga xam ne ñun moom la ñuy proposé ñu seet nan la ñuy tase xabaar yooyu ba population ka nga xam ne ma nga nekk Fongolimbi wala ka nekk Pire ka nekk Dakar ka nekk Kaolack ka nekk Ziguinchor ñoom ñépp ñu mën a jot information bi man koo traité man ko appliqué ndax wax kese amul njariñ si yàlla naan wala asri inna al insana la fi xusrin mais ila alladina amanu wa amilu salihat c'est la fois et l'action su fekkee ne ñun lii ñuy woote moom la ñu gëm nañu dem action lañuy dem action yi nag solution yooyu incha allahu taala ñu ngi woo journaliste yi ñu ànd ñun ba bis ba ñu liggéey ko suñu ko liggéey résultat yi muy génne ñu xool na nañ dafa jox ko kilifa yi wa axiru daawaana alhamdulilahi rabil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullah ci ndaje bi ginnaaw bi ko bi ko sëriñ Moustapha Niass tijjiwee ak li nga xamante ni moo di ñaan ki nga xamante ni moo yore woon seenub kàddu ci kàllaamay nasaraan di maxeet jiite moom nag li ñu tënk fii ci olof rek la daal di tënk ci français waaye tamit ci olof bi kii di Moustapha Gaye daal di na ci àddu li ñu mën a tënk ci bile ndaje mooy Synergie nag fédération asociation la mu daal di ëmb ay association yu bari yoo xamante ni yoo xamante ni nitu diine yi ñu ngi ci biir foo dem ci bépp bépp tarixa ki nga xamante ni moo di sëriñ Bunaama Kunta bokk na ci ñi ko jiite waaye tamit ca Touba sëriñ Cheikh Mbacke Ibn Laxat Mbacke moom it bokk na ci bile association ca Tiwaawan sëriñ Malick si Maodo moom it mu ngi ci biir lépp nag ngir rek taxawu xale yi nga xamante ni dañoo découragé ba nar a jël gaal ci bile forom nag ñu ngi sàkku képp koo xamante ni taskatu xibaar nga nga daal di ñëw daal di ci yëy yàbbi waaye itamit daal di ci dox ay tànku jéego ñi nga xamante ni waa Synergie républicaine nag ñu ngi daal di sàkku ci bëccëg gum 14 15 ak 16 janvier 2021 bi ñu bi ñu dëtmal ñëpp rek daal di ciy taxawu ndaxte mbirum immigration clandestine dafa daal di jéggi dayoo ci seen kàddu ñetti bëccëg yooyee dina dina daal di indi li nga xamante ni moo di saafara ci jàngoro bi